وذل وذلما على النبي واقض بي عدد كل مسلمين براز من بارزني براز من يبارز منتقما بارز من براز من بارزني براز من يبارز المنتقم البارز إذا دلت من إلهي جل بار وإن دربت بإلهي جل بار لجاد بالتوحيد ربي الأهل مزاد لي بقل هو الله الأهل الأمراض وكب من أنكر باخترادي برأني الباخي من الأمراض وكب من أنكر باحترادي لو سكورها على عبدا قديما فاز بالعياد أشكر شكرا الذين شربوا من عزبي وللجنان قربوا حظ حياة لا ترى لخيري معجزة بانت بحسن خيري يجود الرجال بجهادي وزول لي يكون ذا الخيار أحياني الباقي بلا إماتة ولا تنادم ولا sëñ bi dafay seereel xaadim gi mi ndax kii toog Cheikh Mamadou Lamine Baara teg lii ci loxoom muy rakkam ku ne xam ne diggante Cheikh Mamadou Lamine Baara ak Cheikh Abdoul Khadim moo tax Khadim mii ànd ak waa këram siyaare sëriñ bi di ko indil seereem ci moom ni ko dox ma ni waxal bis bi noo ko bëggee. la ilaha illallah. loolu nag. كعب وعسى والكوسين حضره وكلهم سر وأسرار Sëriñ Tuubaa sa maam dafay dox ci kër gu mag ci njëriñ waaw xarub sakkat bu mu romb nga ne ko bul fàtte Isaa Jéen waa këram waaw dafa tax yoon woowu wii nag taalibe bu ci jaar rek am nga la bëgg moo tax Xaadim mii ku ne xam na digganteem ak Cheikh Mamadou Lamine Bara waaye ginnaaw Cheikh Mamadou Lamine Bara Moustapha mi